Euh, moom moo ñu woo ci li nga lu solo la depuis 2013 ci réewi Afrique yépp le sommet de l'internet africain depuis 2013 nous avons koy tenir ci Afrique yépp le ministère japonais événement mondial bu mel nous sababu nous et ñu e euh, def ko le 29 avril le 11 mai Sénégal dina accueillir nous 500 participants nous jógee ci presque 80 pays nous nga des professionnels euh, dans le domaine de l'internet pour nous

Nous avons une formation mais formation formations formation boo xam dañuy mais ministère et l'autorité de régulation des télécommunications et des postes pour nous Nous avons yombal ñi nga nous dañ ko soxla en charge formation la formation de 70 sénégalais nous leen former une semaine ci tàggat len ci biir une semaine ci li nga xam mom moy mooy internet ak technologie de l'information de la communication ak lepp lu euh, li nga xam ne dafa laal secteur bi lolou nak nek na lu am solo euh, ñu ngi remercier bu baax euh, ki nga xam mom moy administrateur maison de la presse bi ci accueil bi nga xam defal nañu ko ñu ngi remercier professionnel yi fi tok ñep ñu ngi remercier journalistes yi ñu jox len dig dajé inshallah bu soobé yalla le 29 pour que ñu teewee ubbite bi euh, bi nga xamné dañ ko placé sous euh, le patronage de son excellence le président de la république le président Macky Sall euh, ki nga xamné nak mom mo wara clôturer bés yi mooy le premier ministre Boun Abdallah Dionne moom mo wara war a ñëw bu soobé yalla le 11 clôturer li nga xamné mom moy le sommet africain de l' internet maa ngi leen di jaajëfal maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah